mbokku Fatick maa ngi leen di sant yéen ñëpp di dalal suñu rakk la ministre bi nga xam ne moo fi ñëw Samba Ndiobène Ka di maire comme man euh, mënoon nañu bàyyi madame le maire Aïda Diouf mu waaye cër la mu delloo ma ko parce que dañu nekkoon ci yeneen i yoo xamante ne mënutoon a ñàkk. yàlla jël dañ koy gunge jëbal ko boromam il fallait ñu nekk fa nekkal fa it ki nga xamante mooy njiit réew mi kon li ma wax ci moom léegi ci tubaab rek mooy gannaaw bu ñu ko santee dalal ko dalal madame Sow Promoville dalal ñi mu ànd ak yëpp ak yeneen région yi ci ñëw li ñuy wax rek moom mooy moom dañ koy sant parce que bokk na ci jawrin yi nga xamante ne ci li ñu ko jox am na lu mu ci indi Fatick ci ñi mu jiite kon loolu rek jar na sant li ci des mooy xam naa ne dana waxtaan ak ñi yore liggéey bi pour que ñu gën di saytu liggéey bi ñuy def fii ci biir Fatick ànd ceeg mairie bi ànd ceeg préfet ak gouverneur pour que li ñu war a jubanti ñu jubanti ko ba liggéey bi mucc ayib loolu xam naa ne dina ci dina ci taxaw niñ ci war a taxawee leneen li ci des nag moom mooy di wax waa Fatick rek ñu ubbeeku te xam ne liggéey bi ñun ñoo ko moom président Macky Sall la jiite réew mi sumb fi liggéey jaarale ko ci ay jawrinam ak ay projet yi nga xamante moom la am kon ñun ñoo war a njëkk nekk ñi nga xamante ñooy gunge liggéey bi ñun ñoo war a gën a jàpp pour liggéey bi gën a dox loolu bu ñu ko defee defe naa ne li ñu fi indi dina nekk njëriñu askan wi kon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm wasalaam. xam leen nuyoo président de la république son excellence Macky Sall la nuyoo bi mu ngi ko jëmale ci population sénégalaise tout entière nuyoo bi mu ngi ko jëmale ci yéen ñi nga xam ne tey yéen a bénéficié ci programme bi ñu naan programme de modernisation des ville du Sénégal Promoville Promoville président de la République ci xarañteem waaye ci bàyyi xelam ci ñi nga xam ne dañ leen a bàyyi ci gannaaw bi mu jëlee nguur bi mu ne du yàlla amul prétention boobu waaye dina jéem kémt lay kàttanam pour ko sénégalais ak foo mën di nekk ci biir réew mi nga nekk ci digg bi ak nga nekk ci frontière bi ngir nga gis sa bopp ci li nga xam ne mooy les politiques publiques looloo waral mu mettre en place programme yu am solo programme yi ma lim ci rek ñett ci Promoville bokk ci Promoville mu ne ko desal ma ci biir ville yi mooy dëkk yu mag yi amuñu tali amuñu làmp amuñu assainissement amuñu parfois sax ay école yu nga xam ne dafa dëppook jamono ngir lan ngir que dëkk yooyu sentir que ni ay dëkk yu mag lañ sentir que c'est de grandes villes comme Dakar Thiès et feneen mu jël programme beneen bu ñu naan Puma mu nekk Promoville nekkal ci ville yi waaye Puma demal ma ci frontière yi ñooñu c'est des Sénégalais comme vous et am nañu les même droits que nous waaye parfois c'est des populations laissées en rade fexeel ma ñooñu tamit ñu gis ci seen bopp moo tax tey ci tey au niveau de la zone frontalière foofu tuddee Puma ñépp xam nañu mu jël également le PUDC mu nekk fu pu mënul dem fu Puma mënul matale yow matalil moo ko kon pour wax ne su doon damay jël Sénégal comme jëmmu nit damay naan le président programme am yi mooy la tête le tronc les quatre membres amul fu mu manqué li am solo nag ci loolu mooy que programme yooyu ndax mu ngi jouer convenablement seen mission yéen a ko wax impact yi mu am tey ci réew mi fu nekk la ñu koy gis moo tax tey ji tey li nga xam ne moo ñu fi indi pour lancer Promoville ci commune ñeenti communes yi muy ñaari commune Sine Saloum Kaffrine Fatick ak ñaari commune benn bi mu nekk Casamance Oussouye ak benn bi aussi mu nekk Kédougou loolu lu muy wane mooy que ni suñu bi réew yàlla may nañu président boo xam ne président bu yemale la président boo xam ne dafa bëgg képp koo xam ne sénégalais nga gis sa bopp ci li nga xam ne ñoo ko fii liggéey tey ci tey nag ñu dem li ñu def fii su weesoo yàlla gouvernement du Sénégal baleyaa tamit desu ci gannaaw parce que financement bi mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñetti milliards ñu war ko séddale ñeenti communes yi kon li ñu war mooy ñu nit ñu gën a yokk suñu Pastef ñu gën a takku ngir que lii ñuy réaliser nga xam ni yéen population bi yéen a ko moom mu nekk loo xam ne dinañ ko réaliser dans de très bonnes condition et ñu mën koo pay pour mu nekk seen njëriñ olof yi dañuy naan tëgg su xëyee di wuti bokk na ci li muy wuti mooy ngalam waaye ngalam yombul su yàlla may nga nekk ab tëgg nga yeewu fekk sa buntu kër ngalam tege fexeel ne nit bu la nax ba jox la weñ bu ñuul kukk loolu nag yéen ñi nga xam ne am ngeen dégg-dégg xam ngeen li ma leen wax président Macky Sall nag def am na ko yàlla bindee dañu ne loo jàngul fekke woo fuñ koy def munoo koo jàngale waaye munoo koo sopp tamit loolooy lan président Macky Sall xamul lu dul rafet président Macky Sall xamul lu dul teraanga président makisal Sall xamul lu dul yar kon su ko nit bëggee xëcc ci terrain koo xam ne yar amu fa teggin amu fa tey amu fa foofu doo fu fekk le président de la république Macky Sall waaye olof yi dañ koy faral di wax gone su lay tooñ te nga man magam man ay waajuram c'est parce que dafa laaj maa ngi jégalu bu baax ci yenn kàddu yi waaye ñàkk mënuma ko woon a ñàkk a wax fii nii fii nga xam ne biir Fatick